tey mel ni sëñ Abdou Lahad moo mel ni sëñ Abdou Khadir xam naa ci mujj gi sëñ Abdou Lahad daa yónni Moustapha Ndiaye mu di ma woosi fekk ma ko sëñ Jili bi ma ñëwee sëñ Moustapha Abdou Khadir laa fekk mu toog sëñ bi déglu sëñ Bay Jaxate bés bu toon def pause maag see nuyu ko mu ne ma demal ba takkusaan nga del si ba takkusaan te ma del si mu ne ma sëñ Abdou Khadir dafa ne demal toog foofa ba mu dem nga doog a ñëw kon day mel ni ànd boobu yàgg na bu sëñ si di yónnee ci man nag di sama kilifa yónni ma yónni ci muy sëñ Abdou Khadir muy teraanga joo xam ni daf koo def ci sëñ Abdou Khadir waaye jaarale ko ci ndax fi nga ko féete dafa rafet da nga koo def kilifa def ko bàyyi def ko sëñ ba ñun ñëpp xam ko sëñ si nag dañ wax ni xaw ma lu ma bokk nit waaye ni ma ki def laa ko def laa xam kon fi nga ko teg rëy ci moom kaw na ci moom te yàgg na rafet na moo tax lépp lu mu def ci yow ci teraanga rek xeeb na ko waaye xeebu ko ndax ci loxo sëñ Abdou Khadre la ko teg te sëñ Abdou Khadre mooy Sëriñ Touba wax naa ko sànq nee naa sànq ci ci ci témoignage bi sëñ Abdou Khadre dafa niru yonent bi sallallahu alayhi wa roy ko moom laa gis ku wax yonte bi seet si na ko fekk ko ci xayma ba njaboot sëñ Tuubaa ci mu ko dégg kooku nag ab cëréem ak ak dund gi mu doon dund sunu kon nag su bisam ñëwee ak ni mu demoon ak sëñ Abdu nga xam ne la si nag amoon lañ neew nañ eh, gopp ak ali ànd liggéey wala mbay su am biñu àndee di tam gis nañ mbay est-ce que nam rafete diire ji sëñ Abdu Lahat di ko yoroon lu ci sëñ luñ ko mas wax dem nañ sëñ Abdu Lahat bu dee weeru seenu weer ak weer feeñ moom day daal di fatu ji lu si yëpp doxalee loolu la ñu ween si yëpp doxalee nag fonk sunna fonk diine ba natt buñ yong yoon doon def yonante bi tëral ko eh, ngir bu ko faagal def nañ ko si yëpp doxalee kooku niru gim niru yonante bi ak doon gim ko doon moo tax kon nag su bisam ñëwee lu ci njaboot si yëpp laa def nañ ko waaye nag jar na ko yow jar ko kon day ñaan ci barke sëñ Tuubaa barke sëñ Abdou Khadre barke sëñ Abdou Lahad yàlla la fi wéral guddal sa fan doole say teraanga bi ñu leen itam wayfal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. daanaka sëñ bi sax moon na maa waxaale sëriñ Xamsatu moon naa wax tontu boppam. dëgg la ndax lim jiital kon Cheikh Abdoul Ahad ñu ngi lay yóbbantewaatu nuyoo ci sëriñ bi di ko sant bu baax di ko gërëm ndax lii ba mu ko dara defal léegi mën na ñaar fukki te ko xam sëñ Sidi xam ne du jëfantu. ndax Cheikh Abdou Lahad ku ko ku jël ci moom dara lam daa wax rek damay def wala mu bàyyi kon teraanga ji koo gis xam ne jëf la te cant gi moom daanaka lot làmmi ñu lot na ci wax ko ndax sa kilifa goo xam ne weesu na la ma du waay jur def la ci boppam noo xam mënu ko weesu kon boo ko doon sant doo xam yan baat ngay jëfandikoo ngir sant ko loolu ñaana ko yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér te Serigne Touba mi tax di jëf ndax léeg-léeg nit dem fa bu ko nee sa digg ak Bachirou mu ne ko loolu lu ñuy wax niw ci moom noonu noonu la doxee day jëfal mu bàyyi kon Serigne Hamza ñu ngi lay nuyu yow itam di la siyaare ndax la ndaxa wax naa la ko léegi ne la euh, waxtu wu ne da koy faral di wax diggante Serigne Abdou Lahad ak Serigne Abdou seen diggante euh, la ci Serigne Abdou Lahad waxoon rek Serigne Moussa Serigne Abdou Khadre la ko waxoon koy sëñ sëñ sëñ Buxaari de ba ñu yàlla di boole maa moom daa dàq seetaan bi ba ñu Sëñ Tuubaa di boole daa dàq seetaan bi moom door ñu boole sëñ Buxaari itam keroog bañ bañ ko ne Cheikh Abdoulaye bàyyi ko na fi boo suñu Moussa Saliou moo ñëwoon di ko yëgal kilifa yi bañ ko fëggee boo dañ ko daa tëj dem yéex a mën a àgg ci moom moo tax ñu denc ko ci guddi gi waaye bañ ko ne sëñ bañ bañ moom suñu son bi daf na ñoo xaw a bokk luñ tontu. ba ba mu ne teg ba wax inna lillahi inna ilayhi lam ca mooy maag sëñ de gopp ak ëllëg lañu kon day mel ne junjoon na ne ab liggéeyam jeex na moom kon bu sëriñ bi defee nii di suñ kilifa ñun ñëpp te muy kilifa goo xam ne ku mat kilifa la ndax ba bu yàggut rek Cheikh Mouhamadou Mountakha seere na ko moom mii mi ngi toog mu ne ko amutu bëgg amutu bañ lu suñ bi digle tàbbi na ci biir lu sëñ bi xalaat rek ànd na ci biir na na mu topp woon ay kilifa loolu fa seen def ba ba faw te noonu waxu ko rek yem ci suñ mun taxaa ci ca kàddu yi ne ko sama jataay bii moo ko njëkk a dëgëral te loolu du ma ko loolu la ci teg kon loolu doon de sëkk ni may defal at mu jot ci teraanga bi su rëy na rëy goo xam ne man sax daanaka àggoon naa ci bëgg ñu bàyyi ko ndax dis gum diis ci man ndax ñàkk tolloo kon daal loo noo ñu ko sant rek doyut yow itam ñu ngi lay sant ndax moo la jëloon boole laag man ci liggéey bi waaye loo itam yaa ngi koy sàmm ndax mosuñ ci juyoo wax naa ko suñu muntaxaa ba tey bu sa kanam kër bu mu dikkee nekk lu ma la ci digal rek yaa ngi koy def te loolu moom moo la ko digal kon di jeexale cant gi ci sëriñ Hamza moo itam di ko sant di ko gërëm ndax day sëtu Serigne Touba waaye di defaru Serigne Touba ndax doomu Serigne Touba ko jur waaye doom Serigne Touba ko yar jikko jooju rek moo ne coom di ku ku yomba àndalit nag ndax nit le koo xam ne ci lima ma mën a seere ci moom mooy nit ku ne day sëñ daal daal wax naan Serigne Touba daal na ngeen folle seen nopp te feet seen i bët li muy jàpp ci ni li muy tëb bëtam lay doon te ku suñ tubaab yi ñor la ku doxanu yoonu ñor la ku bokk ñor ndax amul frontière ci génn kër njabootu suñ tubaab gépp ay ay xaritam lañ ñëpp ay soppeem lañ ñëpp jàmm leen yéene rawatina man maa ci raw waxtu na dama koy seeral fu ma nekk fu ma newut ci dëgëral maag lu mu xam ne sama ndama mu yéene ma ko lu mu jàpp luy defar la mu yéene ma ko loolu la xam ne sama digg moom tam yàgg nag ndax Magalu Sëñ Abdou Lahad ba ma tàmbalee yëndu këram loolu 1996 xam nga loolu ñaar ñaar fukki at ak nangam la yoo xam ne at mu jot këram laa yen lool kon du benn bés kon ñu ngi koy sant di sant njaboru Sëñ waa gépp di sant njaboru Sëñ Abdou Lahad ndax li nga ko wax rek la seen ak amono lañ kon ñu jeexal foofu ñaan rek